salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu man maa ngi tuddi Moulay Ahmed Ould Abdel Jalil eh, di attaché eh, nekk ci cabinet premier ministre bu Mauritanie jógee Matamulana Matamulana nag ku ko xamul eh, dëkku Tijaan la bu ne ci wetu Sarsara suñu diggante ak Sarsara quinze kilomètres la waaw kooku mbaab taarif kooku mooy présentation bi euh, ñëw naa fi tey nag comme ni koy def ni ko waa Matamou Lana di fas ak benn délégation ñuy chaque année ñuy assister màggal bi chaque année dañuy fekkee màggal bi alhamdulilah tertu bi rafet na lekk nañu suur nañu ñam bi bari na euh, néegi rafet na dal nañu dal bu baax loolu am nañ ci aada toujours bu ñëwee fii loolu dinañ ko fi fekk. fekki it organisation bu rafet boo xam ne bii ñëpp kenn ku ne li nga war a am danga nga ko war a da ko jot ci waxtu bi nga ko war a amee muy lekk muy naan muy foo mën a dem loolu it eh, day gën di yokk rek ñu ci gërëm yàlla di ci gërëm it ñi nga xam ni ñoom ñoo fayte organisation bi di nuyu it ñëpp ñu ne fii ci Touba eh, ville sainte maanaam bërëb bu tëdd gii ak ñu tedd ñi fi nekk. di ci jiital sëriñ euh, Mouhamadul Muntaka Mbacke xalif général kullu murit di ko ñaanal yàlla wér gi yaram ak gudd fan euh, naar yi ci jamonom gis nañu fii ci Touba am nañ ci mbëgte trop ci euh, liggéey bi mu def fii ci Touba am nañ ci ci wàllu xam-xam am nañ ci mbëgte trop Eh, yàlla nay yokk muy jëm kanam ci daraje rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk eh, vraiment kontaan nañu ci accueil bi mënuñu def mënuñu wax lu dul jazakumullahu xeyran yàlla mi fay yana leen fay ñuy sant yàlla yit bi mu ñu mën a kattan ba ñuy ñëw fii at bu ne di ko fekkee ci jam ak salaam eh, ñu koy def at i at naar yi dal fii ci kër gi di kër Cheikh Ahmadou Bamba ñu tuddi ko Sarsara mu ni fii héliport nga xam ni berel nañ ko naar yi naar yi rek ñoo fi nekk ganu naar yi rek ñoo fi dal te te te mu mat dal mi doy sëkk jazakumullahu xeran jazakumullahu xeran léegi maa ngi wax ne diggante euh, euh, Serigne Touba diggante Murit ak Matamulana Euh, ñoo ngi ci li ñu nekkoon rek la woon ba woon fa woon ñun incha allahu relation bi ci kanam rek lay dem ndax dëkkandoo luñu nitu jullit lañu ay walla yu lañu jiit ñu ñaan yàlla ànd ba mu gën a dëgër ñuy yeesal ko leer gi jazakumullahu anna xeeran bokk na ci li ma wax nag ci euh, mbirum diine gi xam-xam bi ñuy tasaare fii parce que tey dégg nañ fi euh, dégg nañ fi muhaadara maanaam muy conférence boo xam bi religieux la buy leeral euh, euh, euh, di leeral diine bi leeral it jaar-jaaru sëriñ bi ak liggéey bi mu def ci diine bi ak liggéey bi mu def ci l'humanité ndax yàlla mi ko yónnee yónnee na yërmande yërmande la ci ñëpp ba nekk sax yërmande ci tubaab kooku mayu yàlla la Cheikh Ahmadou Bamba waliyu boo xam ni kenn wérante wu ko du fii du Mauritanie ah, loolu yàlla moo ko may moom moo wax ili yaqaad allahu ma lam yakun wala yakunu abadan li mumkini loolu may yàlla yàlla moo mooy may ku ko neex may na ko loolu jazakumullahu xayran alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ana ismi Moulay Ahmed al-Abd al-Jalil wal-Khuna min qaryati Ma'ta Moulana wa ataytu huna ka'adati كل سنة أحضر مع وفد من معطى مولانا نمثل الحاج المشري وتعلمون أن قرية الصرصارة تبعد 15 كيل عن معطى مولانا إذا أنتم جار لنا وأنتم إخوة لنا في الدين والحمد لله نشكركم على حسن الضيافة كنا هنا وكعادتنا نأتي إلى هذا المنزل منزل الشيخ أحمد بومبا هنا في حي إليبور والمنزل اسمه صرصارة وتكرموننا وتكرمون كعادتكم تكرموننا كعادتكم فجزاكم الله خيرا أكرم الله إلينا وإليكم وأطال الله في عمري الخليفة في صحة وعافية وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء وكل عام وأنتم بخير ونذكر ونؤكد العهد الذي بيننا كإخوة في الدين وكجيران فجزاكم الله عنا خيرا وسنواصل الحمد لله